aousubillah mina cheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee ñoo ngi nii nag ci bis bi nga xamante ni ñu ngi fii ci Soura Serigne Cheikhouna Mbaj moo ko fi amal mu doon bis boo xamante ni tey ku fi ñëw rek eh, ci taxawaay bi nga xamante ni mbokk taalibe yi taxaw nañ ko saxool dina sedd lool ci li nga xamante ni mooy liggéey bi rafet bi nga xamante ni ñu ngi ko fi amal waaye nag macha ngeen gis nii nga xamante ni ñoom ñoom ñooy ay soppey Serigne Khadim Kebe ñu ñëw xëy ñëw indi seen addiya wane ne liggéey bi lépp lenn la mu doon lu rafet loo xamante ni tey ku gis lii rek saxool xol dina sedd lool ci diggante Serigne xaadim Kebe ak Serigne Cheikhouna Mbaj ak it noonu lañ ko euh, euh, wéyalee ak bépp kuréelu jànkat goo xamante ni yaa ngi fii ci Touba ak li wër Touba Serigne ñi ngi lay nuyu bu baax a baax. asalaamaaleykum barakaatu. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen nuyu di leen jaajëfal di leen fay nuyoo euh, di nuyu waaye télévision télé Touba Vision ñu ngi leen di ziar bu baax di leen delloo nuyoo bi di la ñaanal yàlla suñu Touba yokk seen xéewal ah ci barke borom Touba ñoo ngi nuyu seen Cheikhouna Mbaj bu baax ak waa kuréel gi mu àndal yëpp di ko nuyu ci turu Serigne Khadim Kébé suñu jëwriñ waaye di ko nuyu ci turu daayira Xidmatul Xadim mooy soppee Serigne Khadim Kébé ñoo lay ñoo lay siyaar si di la ndokk ci bis bi di la ñaanal tamit yàlla nañ ci daje tawfeexu sëriñ Modou Moustapha yàlla na yàlla na yàlla na doon ay yiw yu soo baaxoon te nga yàgg ko def ndax lii ñu fi indi bari na bariwut ndax suñ seexu naa dafa doon jëmm joo xam ne lépp lu ko waaye defal rek am na lu des ndax ak mbaaxam ak yaroom ak ak ak teeyam ndax suñ xaaj mooy suñ jëwriñ waaye mel na mooy suñ jëwriñ ndax jamono bu ñu xewlee bu suñ xaadim nekkee day ñëw bu suñ xaadim nekkul day ñëw te du gànt benn yoon liggéey suñ tubaab yi ñu ngi ciy bay waaram ba ma sëkk dañu nemmeeku te moo na ne sëñ xaadim dong laa jëflanteel waaye ñun ñooy soppee sëñ xaadim daf ñuy nemmeeku di ñu woo di waxtaan ak ñun lépp lu ñu xew la lu mu néew néew day bàyyi ay itam ñëw ca te sëñ Tuubaa tax kon nag jot googu nga xamante ne sëñ Tuubaa nga koy jox mu ngi ciy boole ñoo ngi koy ñaan na nekk ay jot yoo xam ne ay xéewal xéewal ba àjjana xéewal gi nag ah, lii ñuy indi nii man nañ ne sax dañoo indi xaj ndax am na ñeneen ñu war a ñëw waaye sëñ Cheikhouna kenn fay moo tax waa xidmatul xadim bi ñu dajaloo ñu ne woon nañ ko dem siyaare bu ñëwee indi ko xéewal gi ba noppi ànd ak ci liggéey bi ba suba ak jàmm loolu lañ jëf mbokk yi nii rek lañ koy wéyee ak yéen bépp daara joo xamante ne ñëw na fi ngir bis bi ñëw na fi ngir sëriñ naa Mbathie ñu indi leen ko ba yéen yi nga xamante ni nekkoo leen ci barab bi nekkoo leen ci dëkk bi moo xam foo leen mënti nekk ci réew mi ak ci bitim réew dara bañ leen ump ci bis bi nga xamante ni sëriñ Serigne Cheikhouna Mbaj mi ngi koy amal at mu yàlla sàkk xam naa ne nees tuuti ñu dikkaat ak yéen su yeneen i jataay yeneen i ziar yoo xamante ni yeneen i mbokki taalibe yeneen i soppe ñoo koy amal di ko jël Serigne Cheikhouna Mbaj kon nees tuuti kon ñu dikkaat ak yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu man gont naa la jàng naa la xëy la doo desu doo xam